seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñi ngi fii ci Tuubaa tey ci wetu cheikh Muhammadul Muntaqa alxalifa al aam li tariqa al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer wii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci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 yëkkati ay kàddu yu yum jëmale ci taalibe yi xaasatan wa ila jamii al muslimina aamatan eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwén déwén ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 mel na ni sikkuma ci ñoom dara. mel na ni sikkuma ci ñoom dara. ndax seen bëgg sëriñ bi. ndax seenu bëgg sëriñ bi. mate na ko mate na ko. seen ak doyloo sëriñ bi seen ak doyloo sëriñ bi. mate na ko seen itte ci sëriñ bi seen itte ci mate na ko maa ngi leen di wax ne kon maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf. la nag. la ca dolliku nag.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 lépp nag. dig sant rek sant rek. muy santale ko santale ko. loolu rek mooy li ci nekk. loolu rek nag moo ci mooy li ci nekk. la ca dolliku nag. la ca ko nag. muy bisub soññee. muy bisub soññee. ci ni ko war a nun jàppee. ci nun niñ ko war a jàppee. waaw dañ cee war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 gën ko jublu rek. nu gën koo jublu rek. te moom jublu ko mooy jublu yàlla. te moom jublu ko mooy jublu yàlla. ndax ci yàlla rek la jublu. ndax ci yàlla rek la jublu. nu gën a góorgóorlu bu baax. nu gën a góorgóorlu bu baax. ci gën a soññ suñu bopp. ci gën a soññi suñu bopp. ci lim ci lim nu bëggal.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 suñu di borom suñu borom di santaane. nu di ci góorgóorlu suñu kem kattan. tere. gën koo daw suñu xelu nu du gën koo daw sunu xelu bakkan suñu kem kattan. fas yéene di nag fas nag di taalibe nag rek. ci suñu lépp ci suñu lépp. di yéeneent lu baax. di yéeneent lu baax. ndax yéene yéene moo moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci suñu diggante. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. yàlla rekk te yàlla rekk tax. di def lu baax. di def lu baax. te yàlla rekk tax. di daw lu bon. di daw lu bon. te yàlla rekk tax. yooyu nag buñ ko jiit ko boolee. yooyu nag buñ ko boolee. dañuy am pasteefu. dañuy am pasteefu. di ko def di ko def. sante ko sëriñ bi ko sëriñ bi. fas ci itam nag. fas ci itam nag. moom lañ koy liggéeyal moom rek lañ ciy liggéeyal. noonu rek la demee. noonu rekk la demee. kon jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. sant.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 kon ginnaaw bu loolu jàllee ñuy yëkkati kàddu yi néew jëme ko ci bis bu tedd bii ne ci suñ kanam di bisu Serigne Touba bi nga xam ne moo ko bindal boppam waxoon ne xarajtu yawma sabti rabia safar li xidmatil muxtaari fi sahri safar mooy bis bi nga xam ne cële fi bàyyi ko woon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 suñ borom defal ci barke Sëriñ Tuubaa ñaanee tam mi ngi sant taalibe bi yëpp di fàttali bisi ñëpp gën ci am yitte gën ci am taxawaay gën ci positif di soññee it ci njàngum alxuraan mi nga xam ne ni ko kilifa yu jëkk ya daa ndax xam ngeen ne Sëriñ lépp luñ koy defal rek njàngum alxuraan moo ci war a jiitu nag ndegam bu weeru tàbbee alxames incha allah na ñëpp maasa ci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 safarul xuruj ji mooy ba muy génn jug jug di tàbbi ci nattu ba safaru xaraaj yi mooy jóg suñu borom doon fay fay googu nag ba àddunay tukki du jeex bay àgg àjjana ni mu ko daalee woon sëriñ bi nag ci biir cant gi nga xam ne cant na ko taalibe bi suñu Tuubaa yëpp mooy liggéeyam bu réy bii nga xam ne la mu rek ba boo ko fi sëriñ Tuubaa tegee amul benn xemmemteef wala benn bëgg-bëgg wala jënd yitte lu may daara ji nee nag mi ngi ci sant santal bi suñ Tuubaa yi xam ne ànd nañ ko moom ba àgg foo xam ne kawe na jortam kon sant na leen ci li wees bu baax di leen soññ itam ci li egg seegut ndax waxoon na ko fii daaw liggéey bi àgguwut sori na nag waaye bu demee ba àgg itam mboolem lu ñu ci defoon rek la ko yoraat lu lu lu ko ëpp dana ci dem mu ngi ci soñ ñëpp di ci sant ñëpp.